suñu dem. ma ne tribune yéen kaay ñëw ak ñun ci. journée bu tàng démb. waaw démb moom ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko Siré daal démb xale ñoo moom moom mbeddam waaw diggante Ndakaaru Ndiaye jël Diop ak Paris ñi nga xam ne ay militant Ousmane Sonko lañ ak ay soppeem maanaam cité kër góor gi démb nañ njëkk a jël def ko kër. waaw def ko quartier dégg nga ak takk der ya am na nag ñu gaañ. am na tam ñoo xam ne teg nañ leen loxo. Mm-hmm. ay oto yuñ taal kër ak magasin yoo xam ne kon dañ leen a caxa-caxatee mu ngi nii nag te ñoom boole wuñ ci wax ju bari de ñoom day nee nañ xamal ñuy xaar bis bu rafet taxaw mm-hmm. bas génne dana teg loxo kii di Ousmane Sonko opposition bi nag ñëpp a def bloc ñi génnee communiqué yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp si rek mm-hmm. maanaam procédure bi la gaa yi wax nit même boo rey nit it bu ñu lay jël si sa kër it am na nu ñu la war a jëlee soo nekkee député rey nit faux billet viol lu mu mën a ne dafa am yoon dé démb opposition bi ñu génnee yëpp moo tax ay avocat Ousmane Sonko loolu la ñu wax commandant Mbengue section de recherche mm-hmm. <laughs> ne ko coppati noonu coppati sàmbay naar de mel ni karawu yaasin boobu coppati gis <laughs> MD moom ah, mu ni MD am nga noome pes waa MD lu ko indi loo lii xaw ma ko de xoolal ah. Macron moom sa xaritan boobu kan la. maanaam Macron Macron. Macron kay fu. critique yéen a kaay ñëw ñu ci nga sécurité publique bi. Mm-hmm. gars yi yëglu nañu démb nag. xaw ma waaw alerte la xaw ma dañ leen a bett xaw ma bettuñ leen waaye en tout cas démb daal boo bëggee dégg dëgg. Mm-hmm. jarbaat. Mm. Ah. <laughs> gis naa ci benn policier woo xam ne de birig wañ ko teg. Mm. mbàpp la def mbàpp. ay yow ndeysaan ay dégg nga bu leen réer box boobu li ñëw ak ñun ci Sonko la yee ngi nii chaos ak violence gars yi démb bouclier lañ def taxaw ni kii kenn du ko yóbbu moo de tribune yéene kaay ne mais Macky sàll ci lu jëm ci wàllum éliminer ay adversaire politique am nii kan moo koy arrêté kii arrêtera Macky hmm. ak Macky fan la jëm a gaaña bu dee ay ñooñu Khalifa sàll ak Karim dañ na yàcc ba ñuy yóbbu seenu njiit seeraas. Mhm. xam nag bu jëm seeraas moom. waaw fees. ren di fees rek. Ah. daggate ko <laughs> sam ko yàpp ah non non non way Karim kenn du ko convoqué way loolu moom xam naa ne moom ci la réew mi di tojee. gars convoqué ñu convoqué ko. Ah, yóbbu ma ko naar faal. waaw. koy yëngoogu leen. <laughs> non Karim même bu fa demee du fa fanaan eh, de. gànnaar bi. waaw gànnaar bi non Karim billaahi ku ko laal xoolal réew mi foofu la. mandat de dépôt. mandat de dépôt kaso. non kaso bi ci boppam lañu dul la. juróom benn at. maa la ko ñu nax la nga taxaw fan. foo taxawoon ba léegi nekk Dubaay. ba léegi ñibbi seegoo. nekk ci whatsapp bi. foo taxawoon. dégg nga ah? Khalifa Sall nag. moom maa ngi woon fii après ñu nax ma yóbbu <laughs> bàyyi bàyyi noonu rek génnu Karim moom dem bitim réew moom histoire la moom bàyyi noonu mu sedd dégg nga Khalifa Sall it nii mbir mi bi ñuy déclenché ca Tambacounda ñu naan Tanor nee ko ma nee na nga arrêté lu ko mooy li yëg-li yëg li waroon na xam ne gaa yi sama kaw lañ jëm mhm. non Khalifa vraiment républicain c'est un homme d'état non kooku fi mu jaar ci état non Khalifa nee na ne Khalifa Khalifa Khalifa Khalifa ñu ne ko raap journal bi ne moom tribune xale yi nag démb loolu lañ xaaru parce que xam nañ ne bu ñu taxawee di yàcca yàccaaral ñu jël seen waa jigéen yóbbu Seras. kon li ci Karim ak euh, Khalifa du ci Sonko. feeñul démb. Mm. xaw ma nag li ci kanam xaw ma li ci kanam mais feeñul démb le thème mooy yéen kaa ñëw ak ñun tii intifada gaa ngi nii Ndakaaru démb mi ngi nii waaye gis nga demal fii ci. Mm. Alassane Seck Gueye viol biñ ne. dañ koy criminaliser yaas. waaw ku fi la ñu rey la attale comme rey nit. Mm-hmm. journal bi ne bu yeboon na góor ñëpp nañ waajal seen bopp góor ñëpp seen bakkan nañ ci xottu gerte. Mm-hmm. ah oui. ku fi la ñu rey ñuy bi. monsieur mën naa xëy Khoudia Mbaye ne ko yaa ma ko def. Mm. bu dee buur moom dafa namm ci yow daaneel la rek. waaye sa <laughs> dañ lay rey Mouhamed Diop. tànk <laughs> rek <laughs> rasulullah doucement rek Sud Quotidien ñëw ak ñun ci les patriotes entre guillemets la ko bind de. Hmm. bouclier de Sonko waa ñoo ko wër ndomba dem guérilla université VDN xale yi démb Ndakaaru ngaa jël jóob ci boppam kon la wàcce wàccee. ba ku nekk ci favela. oui source a nañu vandalisme de Sonko's boy. Hmm. léegi voilà. mu ni Mamour Diallo nee nañ maamam ñenn ñi dañoo bind yaayam ñenn ñi bind maamam. ne am na lu ëpp téeméeri at ak juróom. ak fukk ci safara si lañu ko maar day taal yi nit ñi ñoo ko démb këram. Mamour Diallo dañu ko taal. dañu koo taal ca Louga dégg nga loolu. Le Soleil ñëw ñun ne ci ñaari journaux bind nañ ne procédure bi nekkaguñ ca. Mm-hmm. mooy les échos ak source A. nekkaguñ ca lañ bind. waaye kii <laughs> moom nee na la procédure enclenchée. Hmm? dégg nga ah. le soleil moo ko bind. état la ah déggoo ma de. déggoo ma de. Hmm. ba pare dane su bureau assemblée nationale. Hmm. yëngoo gën a ndaw gën a ndaw gën a ndaw juróom-ñetti fan du ko weesu. xanaa kon fii ak lundi bii di ñëw bu yóbboo waa passé fois. maanaam huit jours ah. te yaas loolu la sàkkoon ñoom ñu respecté loi yaas waaye suñu tubaab bi maanaam huit jours réew mi quotidien ñëw ak ñun ci yaas lan lay def à partir de ce mardi muñal rek muñal rek lu metti yàggu garaaw mu muñal muñal yaas <laughs> ni ko MD exposé rek da lay exposé te lii baaxul problème mu sécurité la ah. réew mi quotidien ñëw ak <laughs> waaw waaw nii mu lay exposé nii waaw warul su ne yow ñëpp la xam. li te foo dee bodyguard. Ah. dégg mm. kii laa lay boole. réew mi quotidien ñëw ak ñun ci. waa lii ñu koy tuumaal. Mm-hmm. est-ce que Ousmane Sonko mën na cee rëcc. Hmm. c'est la question que tout le monde ah. ah. mooy laaj bi ba mën na cee laaj laaj bu wóor a ngi. Hmm. waaye ni ma gisee Ousmane Sonko taxaw taxawee moom. ah ci biir conférence de presse bi déclaration de presse. nee na am na yenn ci ay. bagages yu mu yor. ay éléments de preuve. peut-être bu ñu enclenché affaire yi. waaw dina apporter ay ay preuve ah waaw. loolu doo laaj Siré. du bàyyi du bàyyi. Ah. non non Siré maa ngi ñëw Siré damay dem ci box populi. <laughs> dégg nga le quotidien yéen a kaa ñëw ak ñun ci mu ngi nii. gis nga démb Siré. fitna gi. bu doon doomu jàngoro. dañ naan dafa tas comme corona bi. oui mm-hmm. Mm-hmm. le virus de la violence. se répand à Dakar. ne yemul Dakar doo. démb kay dama ne la xoolal ba Louga. man maa nga fa Sonko ngi nii nag gars yi toj nañu waaye daal xam naa ni daal Sonko daal boo bëggee dégg dëgg ah, démb dafa mel ni euh, lu carrière politique am doo ko démarrer entre guillemets nag laa def phrase bi waaw parce que bëccëgu démb bi li li mu wane li mu wane li mu wane démb damaa ne Sonko bi dégg nga loolu Pastef ngi nii ñoom nag dañoo fas yéenee résister. Mhm. mi ngi magasin wu Auchan ba nekk ca Sacré ak këru Mamour Diallo ga ca Louga daal nañ leen. ah waa taximaan bañ kii otoom ba nag. loo ca taximaan ba ay du ci bopp ak ay oto taal nañ leen këru Mahmoud sa ñu caxat caxatee ko ak si su Prodac ambassade du Sénégal ba nekk ca Paris toogaanu université Ziguinchor gone yàlla fa xoolal état bi daanu woon xodd ba. xodd ba waaw. mi nii. code de bopp autorisation de construire oui. ba léegi kenn kenn gisu ko. xoolal lii rek. entrepreneur ba yorul woon benn kayit. <laughs> njiital société bii di 3MD énergie déglu nañ ko mu ñibbi. c'est des choses à juróomi nit dee. juróomi nit dee. te mbir mi mujjul fenn. démb corona bi waxuñ ci nit ñiy dee fii ah! ci 3MD énergie kenn waxu ci. kenn waxu ci de. Mm-hmm. waaw waa terroriste ya kenn waxu ci. état bi la neex. ñoom ñooy divertir nit ñi. Hmm. déggoo ma de. bàyyi corona gi bu déminé déclaration de patrimoine Idrissa dikk. Hmm. mbir mi nekk en leur défaveur ñu yóbbu nit ñi fee. Hmm. kon ñun ñooy nangu daal ñu ñuy. waaw kon ñun la kon nañu xoolaat suñu bopp ñu ñuy ko. dégg nañu enquête ba bouclé nañ ko. mbirum Adja Sarr ak Ousmane jébbal ko procureur tey dossier bi jàppaguñ kenn defeereeguñ kenn terminé yéen kaay na nga xëy xoo dem na ba ca kër Adja Sarr ca ginnaaw raay. Ah. pour xam kan mooy Adja. très bien nañ Adja fii la newoon ginnaaw raay. Hmm. jugee fa dem Fatick. une partie ci enfance am dellu siwaat ginnaaw raay tàntaam da koo mujj génnee kër ga laaj ma lu tax. Hmm. Adja da koy joxe. ah. lii loolu. lan joxe nag. Ah, ah, Adja kon moom foofu la mujj. looy wër looy wër ci lu muy joxe. <laughs> ah non mais je comprends pas. tante da koo mujj génnee kër ga. parce que da doon. ah dafa ah dafa dafa të. ah d'accord ndeysaan. sër waaw ah, yow daal foog ñu foog ñu. ndeysaan la Sénégal ay nañu Sonko yi ngi nii démb fépp la ñu taal. fépp la ñu taal. Adja ngi nii siiw na. amoon na nii siiw gu bon. Adja muy muy tristement célèbre. Adja nga siiwee bon. mais imagine yi ñu ne Adja kooku du Adja de. xaw ma de enquête yéen a kaay ñëw ak ñun ci waaye may ñu rek ak Adja Adja publicité marché lañ ci xam <laughs> enquête yéen a kaay ñëw ak ñun ci mer ak yàq yi démb Siré Siré gis nga. journal baa ngi. Mhm. direct news ñëw ak ñun ci njuumte yi nga xam ne Ousmane Sonko juum na ko. absolument. Mhm. erreur fataalu Ousmane Sonko. Mhm. dénk dox xam lii ab gone gu am ñaar fukki at. te war kër docteur. merci beaucoup. <clears throat> sëñ ah. gis nga ci foofu sax. waaw erreur mënul weesu. waaw euh, ñuy jaawale. Mhm. ce qu'on appelle thérapie. waaw ak dans les salons de massage on de la relaxation. Mmh. les dans les centres de soins on fait de la thérapie. d'accord mooy une léegi journal bi ne gis nga politique. débat la maanaam débat d'idées. Mhm. mais Sénégal nekkatu ko. Sénégal léegi politique bi lan la. masseuse waaje divorcé na sëyam ba tas na wàllum ndoxum góor ngeen jéggal ma débat politique bi yëpp léegi nii la vie privée rek voilà mais d'ailleurs Ahmed loolu loolu mooy euh, te te ma njaabaale njaabu de waaw njaabal rek njaabal rek non non bu ko demaale bu ko demaale non non njaabu amee Ndiago écoute waaw Ndiago écoute waaw. waaw écoute waaw. waaw Siré allez-y allez-y. gis nga euh, gis nga euh, loolu moo loolu moo loolu moo particulier mooy mooy particularité. président Macky Sall ak euh, gouvernance am. waaw. ça veut dire que mhm. le président daf ñu installé. ci ce qu'on appelle la politique fait divers. Mhm. te Ahmed dina am benn question bo xam ne